Euh, salaamaaleykum cher internet univers info tv di leen ziar bu baax a baax di leen béggee di leen jox seen wàccuwaay waaye di leen kontaane bu wér a wér dañuy am euh, mbégte ak contentement ndax topp bi nga xam ne moom ngeen di topp univers info tv ci ginnaaw noonu nag la ñu ñëw seet si suñu xarit koo xam ne ce n'est plus ci tiktok bi ngeen xam ko bu baax ah di ko waxaat encore une fois félicitation ci victoire bi nga xam ne am moom la univers info tv fa seen feet si dalal ko fii ci këram dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyu ñi nga xam ñoo ñu seetaan bu ko defee ñu jëm jëm ci li nga xam ne mooy waxtaan bi ama janoo def waaw ñu ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla jul si yéen bi sant suñu ñaari waajur waaw di leen sant yéen ñi fi jóge sori ñëw fii waaw billaay mhm. waaw di la bëggee bu baax a baax di la waxat encore une fois félicitations ci victoire bi merci yow nag maa yéex a félicité ah, mais tey la ñu gisee waaw déedéet mënu nga ma vocal nga félicité ma ah, soxor baaxul soxna si <laughs> ah, waaw kon félicitation waaw yow samedi bële laa bëri woon waaw waaw euh, léegi léegi doo ñu retracé li nga xam ne moo di combat bi rek ni nga ko bari ndax gis nañ ay image yoo xam ne jéggi na dayo bi ngay génn daal ñi la accompagne bëriwul te yaa ngi xuloog sax ñi lay accompagne <laughs> waaw noonu la mais ñoom ñoo tooñ wala maa leen tooñ moom laa bëgg a xam ne waaw déet ñoom ñoo ma tooñ yow xoolal rek yow yow man foofu du suñ kër de ah. fii fii laa dëkk foofu comico la hmm. foofu sama kër maaraal falaa ngeen boo am di ko nuyu waaw moo tax gisoo fa ay nit man su may ngeemu ci sax may làqatu bugguma nit di ma toog mais xanaa amoo ay supporters. am naa ay supporters ñu ngi fi. regroupement xanaa doo ko def togg añ yeeg. togguma lan moo tax doo togg añ. déggoo ma la danga maa jox xaalis yow. ah mais dañoo baaxoo gis mbër buy dem buy départ ay xaritam ñëw togg yi fii joxe t-shirt yeeg yooyu. waa dama la ñooñ di la toggloo añ est dinañ la jox 1000 francs. waa léegi mais xanaa yow joxuñu la sa xaalis. kenn joxuma sama xaalis ban. combat bi sama xaas combat naa ko jël toog ko añ toog dama war a waa léegi ñi lay topp na xale yi la bëgg. waaye lijjantiwuma leen man ku ma nee bëgg ma ku ma nee nga bañ bëgg mais tooguma man su ma amul ma toogee lu ma toog yow de ma jox may toog. mais man damay gis mbër dafa baaxoo loolu. waaw baaxoo na loolu dañ la koo tegtal wala yow yaa ko bëggee noonu. kenn man la nii ma ni tooguma añ te public laa taxaw wax ko toogu tooguma man la nii yow lu sooyoon. mais mais <laughs> bi xale yi laajee. supporter rek ñi lay topp ni la a toggoo wala ñu ñëw yaakaar fa añ nan ngay def yow. yaakaar fa añ comme nan. comme par exemple heure bi kox ku ne xam na ni euh, mbër moom 13h 14h 15h. lay ko. ku ñëw pour añ ka yaa tooñ sa bopp man dama leen ne ku ne ma leen leer na de. Mm. kum neex saa bul ñëw. waaye añ moom tooguma da yoruma. waaw yow man mën naa préparer combat jënd bologu tike ba pare di toogu añ. te kenn dimbaliwul amoo ay ay jàppale ay maire ko combat bi wax dëgg yàlla moom soo bëggee dégg-dégg promoteur bi sa desal naa xaalis ah. man jaay naa bolog jël xaalisu bolog bi sax dugal ko sama làmb parce que alxuraan looloo tax ma yore leen mais man aw ma problème man bolog suñ ma ko joxee dama koy jaay mhm. mais jaay ko am yoo xam ne ma ko war a def te làmb ji moo ma ko gën a ma jël si aw ma jàppale kenn jàppale wu ma est-ce que yaa ngi dem autorité yi nekk yëmbal noo man moom dama lay wax dëgg man du ma wër benn autorité man du ma mbëri yooyu de man man lu ma am dama koy doyloo am na yoon bu ñu ma ko tettalee aw ma ko sax ma ko def ba may wax dëgg mais musuma dem si autorité di ko ñaan xanaa baara kay te sama mag moo fane am naa droit dem fa su ma waxee dem fa dama fay dem mm-hmm. waaye man musuma taxaw si autorité wax dëgg yàlla ñëpp ma may dégg mm-hmm. waaw du ma ñaan kenn man ku ma may nag ma jël am na ñu ma woo ñu bëri ñu am ay France États-Unis Espagne ñu ne ma soo amaatee combat dinañ ma jàppale mais man du ma du ma su ma amee combat dinaa ko wax ñëpp waaw ku ma jàppale ba ku ma jàppale ma dem ak sama ngor. dëgg la waaw. wala moo tax bi ngay dem noonu yaa ngi xuloog sëriñ bi sax ay di tontu naan ay seen yoon nekku ci te yaa ngi taxaw war a dugg ci oto bi war a dem. waa mais xanaa amoo woon pression. pression man la dox di am pression. ki may bëree du nit. nit la kay mais des fois mbër day am pression buy bëree. ah di xalaat waa koñ ba di xalaat ñi ko ngemb di xalaat kër gaak yooyu. ñoom ñoo ma moom waa koñ bi ñoo moom waa kër gi ñoo ma ba may bëre ba may dugg si laam dama leen taaku kon mënuñu maa teg pression man pression maa ko mën a teg sama bopp kenn du ma ko teg man su may bëree ji damay mel ni ku bërewul damay def lu ma neex ba sama heure dem ma jon ma def sëriñ bi ma yor na dafa dëgër bopp neexul waxal doo waxe benn mu ni fukk moo tax nag su waxee dama koy toon waaye lan moo tax ngay doon sa sëriñ ndax sëriñ nag wax dëgg fa neex yàlla bu lay ñaanal pour victoire am na leneen noo war a mën a comporté woon moom. comporté man comme lu mu wax rek nga tontu ko. saa boobu naanaa bi moo doon saf si biir mënu ko woon nii dama ko mere. nan la def ak naanaa. waaye loolu moom du ma si yegg waaye ñëpp xam nañ nu mu demee ndax gis nañ image. Hmm. waaw ay takku naanaa di ko dugal si ngemu jàmm waaw. ah mais bu fekkee loolu moo lay mooy tax nga am victoire nag. waaw mais victoire boobu dafa metti sa waay waaw yow yéene woo ma jaamu de. damay laajte rek yéene woo ma jaamu de. ba pare yaa ngi yaa ngi ciblé naan daf la yoreel xaalis. waaw lan moo tax ngay wax daf la yoreel xaalis. bu ma yorelee du ma ko wax. mais kii nu koy xatee sa sëriñ. waaw dama ne bu ma yorelee du ma ko wax. man du ma xel. man damay jaar si digg bi. lu am dama koy wax. yoreel bi nu mu demee. eh combat am. Mm. dem fo wax ko dama am combat mu ne ma waaw ma ñëw fa mu yëkkati benn nen bu ñàkk fu la jox ma ko. yaa may dégg. Mhm. nen bi su ba may dem esaat dafa jaasu ko téye nen bi toj si ay loxo ma dem ñu daan ma wax ko ma ne ko yow jox naa la soixante mille benn nen kasa nga ma jox. Mhm. ma wax man maa ko wax si public. Mhm. mu woo ma wax lu ko ne ma ne ko yaa ko def te sama soixante mille ak ma koy am naa dura. waaw. léegi nga amaat combat dem mu ngéem la. ma dem mu ma. léegi bi nga kan laaj da maa sañ a laaj xaalis am damaa yebee noonu waaye am du ma yëpp da daf may ñaanal rek. Mhm. waaw moom sama maara la day jàpp samay combat da si soon mais tamit du ma mës a yëpp man sax du ma wax waaw du ma dem ngeem bu lañ seeg te moom day ñaan yàlla. Mhm. waaw man it yàlla laay ñaan moom day def lu ko war rek mais lu su kiiwee danaan yàlla baax na waaw man it heure bu waxee tamit dama naan ko baax na. dëgg la man du ma fen man damay jubal si yoon bi. waaw Serigne Mbaye Farawude maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm waaw Serigne Mbaye Farawude borom moom mooy defaral affiche ak lépp du ma ko fay di la ñaanal jàmm bu baax. Mhm. billaay di waa ñagas deux yow nga may ma jàmm waaw. ñagas deux lu ñagas deux dafa soof nga naan fii moom daf may lii di ma naan ay nañ bëre man dépassé naa ko duma ma bëre moom. lan moo tax. kooku duñ mës a bëre. moo tax foo ko teg ku ngande kooku mel ni ñay man dinaa bëre moom mu may rey. Ah. moom Hercule la mujjee daal Hercule la xeju sama kaw. Ah. man aw ma doole. di la di la wax nga ba ma. bëreewu ma ak yow te du ma ak yow te bis bu woon buñ dajaatee esaan nga ma billaay naal dóor ko. Mm. war naa lu leer. mais gis nga nag récemment li nga xam ne moo dal axlu lam muy la dëgër de yàlla def mu daal di nekk ni instant bii nag ci loxoy yoon en tant que tey. ban appel nga ci lang lancé ak nan nga xamee nga xam ne moo di Lac de Guiers témoignage. non Lac de Guiers moom lu ma si wax bëriwul nit ku baax la. man Ikrim laa nekkoon. Hmm. man Ikri waala nekk naa fa. ñaata def ma fa deux ans. deux ans waaw fa def deux ans boobu nag ma ngi lu ndaw. waaw kët si bi ne ma doo bëre da ngaa ndaw kët suroon roon kët su roon bugguma musuma bëgg. yaa ngi man nekk si ikiriem am fa deux ans mu may añ naan may doo bëre xiiboon ngaak di ma xas moom kët suróol moom mu may dégg yaa may dégg ma mer nag ne xaama génn ikiri bi mm-hmm. looloo ma génnee foofu mais la dégeer nit ku baax la dañ koy ñaar yàlla suturaal ko may ko mu génn waaw di woo si ñëpp ku si mën a jàpp nga jàpp man su ma amoon ay millions dama koy jël def ko si moom jaral na ma ko man sama xaalis du ma booleeg nit barke alxuraan man damay dem saa ay nit may ma xaal ma tas ko si samay nit barke al démb rek moo si mujj dama dem fee parcelle si ñoom fils de ga gaa yi yëkkati xaalis bëri may barke te fa dem yen fa ñu toogal mo ma lekk ba suur ñu yëkkati seen xaalis may ma xaalis bi yegg siwul fii barke alxuraan dama kaa tas billaay wallaay man samay nit ñoo ma gënal lu ma am sama àdduna képp ku may top yow yaa ma gënal sax sama bopp man man ku ma bëgg dama lay bëgg waaw nit damay am ay message sax ne ma Ama Dia maa ngi lay sant si li nga ma tontu pourquoi man aaduma nit man ku ma envoyé message gis nga ñun ñun ay jullit lañ te ay nit lañ yaa man ñaan ma ko ñaan nañ yàlla dem si kaw buñ demee si kaw tamit man ku ma woo dama lay jël man du ma nit yooyu man du ma yëkkati sam bopp du ma fëgg sama sama dënn yaa may dégg man ku ne may woo te ku ma woo dama lay jël su ma la jëlu sax su ma gisee sa appel dama lay bippe soo message dama lay tontu barke arxo man man du ma nitu dara man nitu nit ñi la man man Sénégal àdduna fu mu toll nii ñoom ñoo may supporté te nit amul lu dul nitam gis nga Sénégal soo faalewul nit ñi billaay wallaay kenn du la faale comprendre gis nga ñun ni ay mbër lañ te ay nit lañ li ñu war a xalaat ñun ñi ñuy bëgg di ñu supporté yow ñooñu fayoo leen wax ak ñoom nga mën ñoom ñooy dem dagg seen 2000 ticket dem dugg si si stade bi seetaan la man nag man du ma mbër yooyu du ma mës a sama dën ku ma man su ma bëggee sama numéro du du nekk TikTok pour bégal samay nit moo tax te maa leen di ñaanal ñëpp képp ku bëgg Ama maa lay ñaanal jàmm soo mu waree woo danga may woo te may jot. Mhm. waaw ñun ay nitu kese lañ te àdduna lañ fi nekkal te keroog dama def benn lii ba ma bëree daan daan jamono booy bi doomaraam la am na ñoom woo nañu man dama am ay nit am naa staff de ni may gisee ni li ma ñàkk fu la am naa ay nit dañ may woo ne ma bul waxati li man leen waaw xam nga sa yaram mooy tàng di di wax Sénégal yëpp képp ku si mer maa lay jégalu damaa jum man du ma res du ma manqué ak nit respect man ku ma gis dama lay jox cër bañ na ko suñu gisantee damay mel ku la xam at di gërëm waa Guédiawaye yëpp waa Kër Massar gars yi ma si pour waa Tivaouane waa Touba waa Espagne su ma limee damay juum di gërëm abusi nag bu baax abusi di ko ñaanal jàmm moom ak bëy di ñoom ñu maa leen sant góor a sàll moom yoreel na ma xaalis man ñi ma yoreel dañoo bëri de góor a fii la dëkk mhm. combat bi wax na ma soo daanee ma joola mhm. ñoom dañ lay dig nga daanee est-ce waaye démb ñëw na fii di ma baap waaye lool génnewu ko si mhm. waaw ku mel ni caatu waalo moom démb woon na ma envoyé ma sama xaalis saalum ba léegi joxaguma yaa may man samay yëf day direct de ku ma jox damaa la jox nga ma. ñi dikk dañ maa war a jox parce que damaa bëri ba gaañu. de fan yii la may faju. fii la ma gaañ si bët. Oh. yaa may dégg. Mm-hmm. man ñaari fan yii laa tane fan yii la ma doon dem hôpital di ko xool parce que fii la fa dóor dafa soxor rek. waaw di doo xool ay kanam ak lépp nga ñëw dóor nit ki si bët. man man yàlla mu ma dóor nit mu daan. sama laam barke alxuraanu karim ku ma nar a dóor nga daanu yàlla nag ma daan mhm. man du ma yéene nit lu bon mhm. mais tey CNG ni muy def des fois ngeen ñëw retard mu dagg leen des fois ngeen ngeen am nu ngeen taxawee wala nu ko naqari wala avertissement yi mu dagg leen xaalis tey jii xaalis yooyu noonu du woon yoon comme ni la daggee amee nii problème ñu génn genre xaalis yooyu jàppale ko waaw waaw loolu dëgg la waaye CNG xam nga ñoom ñoo nekk ñoo yor organisation. loolu du ñu ñu ñoo ko war a dox. mais yow en tant que mbër tey ban jàngat nga am ci loolu ci dagg yi ñu leen di dagg après mbër bu amee problème du ci du ci gis boppam. wax dëgg yàlla loolu bëgguma see sori man bëgguma ku ma aj te du tooñ nit soxna si bu ma dugal. yaa ngi dégg waa CNG moom nañ dem ma dem en tout cas su man moom duñ ma gaa dagg. ah mais nit matul. nit matul comme na man duñ ma gaa nag yow man deux heures estar la may fekk bii passé man maa leen jàppale barrière yi ba pare ku foofu ku ma dagg kay da ngaa saaj sama xaalis <laughs> effectivement mosuñu ma gaan <laughs> <laughs> bu ree yow man maa leen jàppale barrière ñu rangé kooku may daggee bu ma duggee si géew man attaquant la kenn musul arbitre musuma woo ne nii effectivement léegi luñ may daggee man samay ni sama combat bi paase benn booyel moo dugal benn biteel dama kaa dàq dama ne ko génnal biteel boobu sax laal ma ko. ah non non. mais boobu bu sa sa sa victoire. waaye daa yor sama victoire biteel daa yor victoire. Ah, la bokk. ci la bokk mais yàlla mooy maye. ni da ngay gëm yàlla mën ngaa bañ a sangu sax nga dem daan loolu si dara man mbëri ñoom ñooy def lu man defuma loo sam bopp. man ma sangook ma ñaaw man sama combat bi am na biteel yu bëri fii laa leen bàyyi te dama ko waroon yóbbu ndax bugguma biteel sonn sonal ma nu ma si jublu ko ma mais tey yow xoolee mbëri ak ah, quatre vingt pour cent yëpp gàllaaj bi la ñoom la concerné mais man gëwuma loolu man man xamal la ma gëm man sam bopp ba pare damay lu may def damay jiital yàlla damay xam su ma demee lii yàlla mën na ko def gis nga loola war a dal loo mënta def dalay dal loolu mënu ko dindi waa mën ngaa def sey gaal nit def gaalaa jëm def lem ñu dóor ko mu daanu nit ñëw deful gaalaa dóor nit mu daanu loolu du làmb làmb nañ jiital suñu xel nañ xool si Modou Lo waaw mu ngi nii du tax ay kere kereenam lay indi ñu nga ñëw mu dóora ba ngay bëgg a di daan la dem yoonam <laughs> comprendre te du tax téere daanul man soo xoolee géej bu mu fay dugg téere yi ma takk fii yëpp laa dindi téere avant bëri lépp laa dindi te damay xam ne booy bi da siy jàpp te bu si jàppee mën na ma dóor ma waaj te bi mooy dóor ku suufi ñu ngi jàppante ñaari korose loxo su ma taxoon téere fii lay téye moo tax bi ma gisee mu dang sama ma gis mu dang nii dama rocc yëpp diir sa téere yooyu moo tax ma daal dama kaa teg te pourtant dañ ma ko bindal jox ma ko arxuraan ma takku ko mais dama ko dindi ku daan du maa daan waaw téere daanul na gaa yi bàyyi xel si seen si yàlla mhm. boo defee li nga war a defee ba ngay jiital yàlla mhm. man heure ku ma wax ay yaa defee dama naan la yàlla baax na mhm. foofu laa yem ak ñoom ñun dañoo euh, war a gëm yàlla Aziz bi ñu koy bëgg a teg nag comme par exemple euh, maanaam képp koo xam ne dafa euh, nekk roi des arènes ñu ñu ko ñu koy fay xaalis ba pare tamit roi des arènes ñu bañ ko joxe comme par exemple rek daan nga roi yaa nekk roi des arènes mais plutôt ñu xool ci combat yi maanaam nombre de combat bi nga am ak victoire bi nga am soog a mën a nekk roi ban jàngat nga am ci loolu. c'est lan. comme ci ni ko Aziz Ndiaye waxee ñuy fay léegi roi des arènes bi chaque fin du ñu lay fay. waaw ñoom lool ñoom la concerné man mu loolu du ma wax moom sax. ah dama la doon wax moom. waaye kooku dafa soxor. kooku kay ay waxu roi si boppam bu ko fi wax. yow waxal ak man si li ñuy dund nii. ah mais tamit ci ko ci làmb ji nga bokk te concernant ak lu làmb la parce que ak làmb la concerné. yow xaa seetaanoo samay interview waxuma la du ma jël roi. lan moo tax doo jël roi kuy bëri tey roi nga bëgg. yow ku la waa bëggoo ni ñu ñi amaja roi des arènes nga sigil waa yëmbal. yow da ngaa bëgg roi. ah man ndax dëgg fa man ku bëgg na ku sañ moom doo nekk roi xanaa gisoo sax waali the king lañ koy wax. mu neex ko trop. waali loolu moom la concerné. waaw léegi loolu moo tax yow bëggoo nekk roi des. du ma mburu roi dama déggoo ma aw ma doole buy jël roi. Mm. doole bi laa amul. buñ bëggee ma jël ko nañu ma jàppale ma entraîné yokku poids mais nii nii mënul jël roi. mais est-ce que yaa ngi dem sa entraînement ni mu waree. maa ngi dem instant maa ma instant damaa sañ a bañ a entraîné man daanu ma entraîné waaye instant damaa jël samay matuwaay parce que dama am ay nit. Mm. te ñun ay góor lañ. waaw làmb dootuma si foo mhm. dootuma si sa caaxaan ndax am na ñoo xam ne nii dañu may bëgg te yàlla tax loolu mu ma si dara waaw ñun ku ñu bëgg rek moo ñu sonal buñ ma buggul woon du ma sax entraînement mhm. waaw. tey ñu bëri ñu ngi naan Ama Dia mbëru TikTok bi la di neexal ah te te champion la nag ndax def nga cinq combats non. sept combats sept combats ñaata victoire. quatre victoire laa def trois défaites. trois défaites. xam nga kon loolu tamit nekkul mbër mu ndaw maanaam champion nga. mbër bu ndaw laa bu ma dugal si mbër yu mag yi. waaye nekk fii dugal na mbër yu mag yi di la tëkku fii. ba gaañ mais naa nekkul mbër comédien la lan seen xalaat bu leen neexee yow bu la neexee nga ne ma doo mbër. Ah, waaye man gëm naa sam bopp. ndax yow tamit dangay dem di entraîner di ut say gàllaaj di sonn di def lépp lu mbër di war a def ñun la doo mbër tamit dafa naqari ci xol loolu est ñu ma koy wax sax dama neex ay doo mbër ku ma ko wax damay kontaan nee nañ comédien nga yow da ngaa soxar yow soo la yow ba ngay ñëw fii sax ba ñuy wax démb laa am ku soxor nga yaa may dégg man munoo maa yi ñaane waa déglu rek man man man ku ma wax ko ma jee dama naa alhamdulilah waaye man su ma duggee si géew ñëpp xam nañ ni du ma ko majee damay def lu ma fa war ko majee man man nii laa mel di man li may wax nii man nii laa mel naturel ñoom ñoo xamul waaye yëmbal fii laa la wax ñoom xam nañ nu ma mel man li may def nii tayu ma ko sax man man su ma defee vidéo nii pare naa si gars yi ñoo koy dugal man sama compte bëriwul vidéo billaay man tiktok déggul ma la wax rarement laa fay dugg mën naa toog ay fan du ma fa dugg nit ñi ñooy jël sa vidéo dugal waaw wala ma romb nit caméra ma sax ndeke dugal ko te man duma si yëg dara damay jàpp ni dañuy lii nii rek mu yem fii mais damay vidéo wax ak nit sax ndeke nit ki mu ngi may vidéo te duma ma si xam dara TikTok tay suba laa fa dugg fa gis ay vidéo yoo xam ni damay toog nii di waxtaan comme toog nii di waxtaan ak nit rek ndeke ñoom ñu ngi may vidéo ba pare dugal ko comprendre te du si yëg dara damay jékki-jékki ñu envoyé ma vidéo dem maag Talfa bi ñuy wax rek. vidéo nañ ma dugal ko man damaa bi may yéeg sax di sax xam nga yow buñ lay vidéo doo ko doo sax xam dara. waaw la demee moo tax sama kii bi dem ba law si lii bi rek. Mmh. barke alxuraan di ñaan ñëpp jaam. Mmh. képp ku ma bëgg bëgg naa la ku ma bañ bëgg naa la. Mmh. waaw képp saaga yàlla na la yàlla suturaal defal la li nga bëgg sa aduna waaw keroog dama dugg laa am ñu dugg di saaga gis nga àdduna solo. barki arxuraanu ko man ñi may ñi may ku ma saaga laa la wax su ma jàkkaarloo dootoo ma saaga du ma xeex ak yow. Mhm. ndax man du ma nit boo xam ne damay histoire ku ma saaga jéggal naa la si xol bi seet guy ñun ay nit lañ te ay jullit lañ n'est-ce pas mhm. du ñu manqué ni respect man kenn yareewu ma noonu te képp ku ma wax lu la naqari wala ma manqué la respect maa ngi lay jéggalu ñun àdduna lañ fi nekk te dañoo bëgg ñëpp kontaan yaa may dégg di sant Ndeye bu baax fu ma toole ma koy sant. mais sa diggante ak Ndeye Gueye Ndeye Gueye bu papa booy ji ne maaji maaji waaw sama waay la nit ku baax la moom dañuy déggante su ma daf maa woo damaa ne ma Amadia yaa ngi def live lan moo ta demoo entre ma ne ko tey dew ma sama bët bi ma doon metti ama nit ku la bëggul du la yéene jàmm. man ak lu mu mën a defal man su may wooyee ne ma defal lii loolu moo ma gënal sama àdduna man nit woo ma yedd ma. fu ngeen jaar yaa ngi déggee tey ba ci yow. jaar jaaruñ fenn lu dul moom dafa baax rek. nan ngeen xamante ndéygee mhm. moom dani moom moom yàlla na ko yàlla defal tan moom dafa xaw a tawat yàlla suturaal ko may ko tan comprendre mhm. moom keroog daf ma woo keroog sax guy gi moo joon numéro mhm. ma woo ko moom dani man ndéygee yaa xay rey ma ne ko jox ma numéro man ma woo ko mu ne ma Amady yaa may rey Amady feebar mais taluma sa sama feebar yow instant yaa ma faj comprendre si la ñuy déggante mu ne ma dama laa bëgg ma ne ko man maa la raw mais après moom su ma wooyee dama gis à chaque fois man nit bu du alal quoi nit danga koy jàppee ni sa bopp waaw daf may yedd su ma demoon entraînement mu ne ma lan moo tax demoon ma ne ko dinaa dem wala lii boog lii man keroo ba ma demee këram defal na ma lu may defal sa moom sama waaye di ko ñaanal jàmm waaye man yedd yi ma yedd moo ma gënal sama àdduna man nit ku may woo di ma yedd loolu ma gënal alal bu moom kese sax am na ñeneen ñoo xam dañ may woo Ama Dia dañ ay France fu ne la ma nit di woowee ne ma li ngay def continuer ko pour man loo sax tayu ma ko sax li may def sax ñoom ñoo wax jàpp mais man nii laa mel naturel du ma ko ma jiñ ma jàpp damay wax dara sax du ma si bàyyi xel ma gis ko TikTok ñu dugal si ree ma après laay seetaa xam ne lii laa def bari <laughs> laa keroog dama romb ay booy di si di reetaan sam bopp mm-hmm. di seetaan benn vidéo man may seetaan sam bopp booy di ma woo man leen man sam bopp sa laay ree nii mm-hmm. ndax xam naa ne wax naa jéey te tayu ma ko <laughs> barke alxuraan <laughs> mais tey jii moom tamit nga gis ko nit ñi nit ñi di ko des fois di ko di ci internet moom day gay Euh, ndax ki nga xam ne moo di Papa Boy Djiné di borom këram moom it yàlla dafa def mu am ay tolof tolof ci ci làmb bi en tant que mu nekk sa xarit tey boo ko doon conseillé la nga koy wax ak kii tamit nga xam ni moo di borom këram. gis na Papa. nit ñi Sénégal ñoom Papa mu ngi daanu te tur moom mu ngi daanu. koo wax Papa laay xaru jël combat bi. su amul woon tur dinañ ko jël. moom mu ngi daanu mu ngi am komba man jàpp ma ne sax muy daanu man lu ma koy wax naa entraîné waat Sénégal amuñu defet fi mu toll nii su daanoon benn combat ñëpp jox ko bopp te incha allah combat bi ma koy ñaanal yàlla suturaal ko may ko waaw gis nga nit ak lu ko yàlla jagleel yow da nga koy nangu moom bu doon mooy maye ndam kenn du ko daan day may boppam waaye yàlla mooy may te lii yëpp day jeex te naa xamal leen de dafa mën a bëre arène arène moo naqaree maanaam moo yi lijjanti te gaa ay bëri xamuñu ko arène tey da ngay dem yóbbuli ki ngay bëreel indi leneen yow nga indi lii mu indi leneen nga indi xeex mu indi bëre nga indi bëre mu indi xeex. mais des fois nit ñi def ay commentaires yoo xam ni rafetul ci Ndeye Gueye comme da ko genre. fii amul jigéen gis nga yàlla mooy dogal mooy boole sëy mooy takk sëy comprendre nga nit ñi nag ñooy wax mais jabar man dama gis ni yàqul nit quoi. jabar da dalay defar sax man man sama jabar lu may defal man damay toog sax di ko wax yaa may dégg te man avant ma dugg si làmb maanaam moom ñu ngi nekk ñu ngi sëy ma dugg si làmb mais par exemple jugen jógee entraînement sax mu jël xaalisam togg damay ñëw rek fekk fi lekk bi kon jabar nan nan la yàqee mbër yow kay demal di entraîné ba ay tolof tolof moo ko jàpp mais nekkul ay kii dafa takk kii moo tax yàlla nag day day gis ku mu gën a bëgg mu teg ko nattu te ndey ma koy wax na muñ lu mu dégg na bañ a tontu gis nga Sénégal jaruñoo sax waxal si yenn yi man nit su ma wooyee saaga ma dama lay couper bolaka la nànk kan la ñuy coowee fan la ñuy waxee ba nit ñi di ñu dégg du ma ko seeka yow nga may yab sax man ni may gisee nii billaay nit du ma yab parce que du ma du yegg ak yow sax foo may yabee boo ma naree indil ay problème ma teg la ne dem nga nekk si leneen ma nekk duñ coow duñ histoire waaw man noonu laay dundee ndey ma koy wax rek moom mu xam ne loolu la ko yàlla jagleel yàlla na ko yàlla defal jàmm ba mun koo muñ ba mu jeex bis bu papa daanee kenn dootul waxte ay Ndeye Gueye niñ sénégalais moo mel noon maa ngi koy ñaanal jàmm barke alxuraan di ko wax na muñ na gën a muñ waaw Sénégal moom muñ kese moo fi nekk waaw tey jii Ama kan la kan la kan la kan la dekk moo nekk ci xelam kan la war a mën a bëree ak instant bi na la tracé carrière sama carrière comme nan comme par exemple kan nga teg ci code maanaam kii bëgg nga bëree ak moom bëgg nga làmb yóbbu la fii ak feneen nag feneen waa man am na ñoo bëgg a bëre mais du ma leen tudd lu tax doo leen tudd gars yi des fois dañuy wax seen adversaire non non man sama adversaire benn bara de laa ciy tudd bara de laay tudd si sama adversaire mais ñeneen ñi du ma leen tudd. parce que ñoom ñoo ma war a tudd waaye du man man. Pokola man. waaye nag yow. kan mooy génération. yaa kooku kooku du moom. lan kooku day xeex rek. làmbam day xeex rek. ñun ñun lii wuñu ñëpp boo ñuy xeexee ñi am doole kañ à kan ngay mujjee bëre yow bu waxee nga ni diw dafa am doole diw dafa mën a xeex kan ngay bëre à sa waay kooku duñu ay naataango yaa may dégg ay kuwam maanaam attanu sama bopp bi dafa ndaw attanu ko. Hmm. bëriwuma pokalaa yow yow xooloo yeneen bër pokalaa nga xam ne làmb mi histoire yow moom ñëwul pour bëre te ñun rayante wuñ di <laughs> ñun nekkuñu di rayante di Ah, moom da ngaa jàpp gaan bu ñëwee yow da boo ñëwee làmb bu bëre woo di dóor di dóor bu yàggee comme ni maa ñaamel lay mel hmm. kenn dootu ko jël hmm. dafa soxor nit da ngay da ngay am kóllëre bi mu am yow yaa ngi da ngay entraîner day entraîner lan la waaye daa am ay nit yoo xam ni hmm. ay nitu histoire lañ comprendre te man du nitu histoire foo laa daal yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye comme bëreeg moom nii opté wu ko te Pokola sax yàlla buñ daje comme nii ñu daje ma gis ko sax doy na. Mhm. Pokola baal rek baal mu seet. mais mhm. daan na sama mbër nag. billaay jël bu ma bett démb damaa feebar. Jackson sama waay la. billaay mais waaye musuma kaa xalaat te Lac Rose ma la ma koy supporté mais Jackson kuy bëre moom moom laay faral te man waa Fass dama leen doon supporté dama leen bëgg. waaye Lac Rose na sama mbër. mais nan nga jàngatee combat daa def dafa yàqamti rek. nan la ko daa yàq dafa bëggoon jëlee foofu Lac Rose te Lac du mbër bu ndaw moo ko jiit si làmb waaw dafa waroon ñëw jël temps xool lu mu indi mu déglu ko. mais dafa ñëw rek bugg ko saa saa jëlee ko fi te Jackson sax xëy na nit ñi ñooy wax mais noonu lay bëree moom ku taxaw si kanam da la fay jëlee mais soo daanoo nit ñi dañ naan da ngaa moom noonu la mos a bëree ay amet dem yëpp noonu la def day ñëw jëlee la fi mais Sénégal xamuñu loo boo daanoo rek ñu indi leneen teg mais Jackson démb yàlla moo ko may defar rek mais du cuuneem quoi noonu lay bëree. Mhm. Lac Rose nag nga am ci moom bi ko gisee en tant que taxaw na. non taxaw na entraîné boo entraîné wul woon pare du daan te am confiance weesuwul nga war a bëre suba ñëw esaat moom samedi mu ngi woon esaat man maa ngi foofu rakkam bi muy bëri ñëw na. waaw kon kay loolu mooy yenuwul làmb yi waaw daa toog wóor rek waaw. mais instant est-ce boole wala yàgg Bou Siteu vu hmm. bokk lu ngeen def comédie comme moom nee na moom mooy mbëru jeunesse bi yow ban mbëru askan laa mbëru àdduna. <laughs> comprendre Bou Siteu dafay xaar de nekkatul mbëru jeunesse. ah lan moo man maa maa fi nekk jamono ji ku ne ak sa jamono. xëy na gars yi man la jox boobu jamono jii. Eh. mais nañ jàpp ni rek lii àdduna la day jeex. comme mais sa waa làmb la buusita soxla naa ko. <laughs> waaw ku ko làmb jooj moom ku ko tëgg moom far force di nga am xaalis. Ah. ku ko tëgg waxuma ku ko moom man TikTok bi moom la ñuy wax. buusita moom dégg na lu ñuy wax moom man nangu naa na ma may sens moom moo ma njëkk a génn si lam lan bëre lan. kooku bu mm. buñ bëree du ma ko wax lu ma koy def ndax kon du ko jël. Mm. waaw mais man maa ngi koy waajal te xam trop lu mu daw daw man moom dañuy bëre. Mm. waaw dañoo war a bëre parce que làmb làmb cool waaw promoteurs yi maa leen wax ñëpp ñoom Aziz Ndiaye ñëpp ñoom Baye Ndiaye nañ ci jàpp ñu tëgg làmb ji. waaw la de ku ko ku ko tëgg moom far di nga si am xaalis. waaw parce que nit ñi dinañ ko seetaan si TikTok bi lépp moom la ñuy wax te moom laa bëgg a bëre xam nga moom champion la dama koy ñaan sans rek comme que moo ma raw si làmb maa ngay ñaan chance mooy ma chance boo amee conseil yi nga xam moom ngay wax mbër ndax des fois ñu naan mbër dof la ah mbër di leen teg ay ay ay yoo xam ne sax warul te pourtant mhm. wax ñooñu. kan moo ni ñun ay dof lañ. ñu koy wax bëri na naan mbëri du ñu nit. <laughs> kan moo ko yow da nga dégg. dégg naa ko ci commentaire yi. man TikTok yow rek laay topp. kan TikTok laay loo may toppee. parce que li ngay def dafa neex. yow loo wax doo ci waxaat te dangay reelo reeloo askan wi. waaw mais loolu la yàlla dogal man mel de bul ma soxoree li may def. Mm-hmm. waaw nit duy ñaan. <laughs> yow li sa bopp rek. Eh, tey jii tey jii lan ngay wax mbëri ñu changer comportement yi. comme changer comme nan. comme maanaam li leen di adressé ay mbëri du nit genre. <laughs> waaw léegi ñoom ñan ñoo dul nit man duma nit. man may dem si nit ñi. xew am ma dem dëj am ma dem nga dima du ma nit waaw ñun ay nit lañ de ñoom ñooy bëgg a jàppee dof waaye ku jàppee mbër dof la yaay naa sa bopp mm. mbër la gën a nite ñun dañuy dof dof ah, lu dofuñu lu man moom nii laa mel xanaa yeneen mbër yi mais man moom dof dof lu ma nii laa na naturel waa dama leen wax rek yi dañuy dof dof lu kenn dof si ñoom xam nañ lu baax mbër yu bëri ñoo fi am xaalis ñoo fi am ay kër nga ne nit ki dof la yor jabaram yori doomam nga ni dof la <laughs> <laughs> waaw yow yaa dof de waaye mbër yi kenn dof si <laughs> ñoom ñoo dof de hmm. mbër yi ñu ngi liggéey de sa waay yi rek ñoo fi am xaalis hmm. waaw ñoo fi teral nit ñi n'est-ce pas waaw lamb ñi si teral nit bëri nañ waaw eh, kon kon tey jii nag euh, booy woo sa supporters yi pour prochaine fois ñu ngi naan nag nga togg añ wax dëgg fa neex yàlla ndax loolu metti na leen lool nga togg añ defar ay t-shirt waaw parce que nag yéen dafa metti rawatina ngay gunge mbër boo xam ne añoo <laughs> yow yaay toogañ. toogu ma de waaye war woon nit ñi toog. yow mbër nga. déedéet. yow mën nga maa toogalañ. mais tamit an sa soxna. an sa am ay soxna mais xaalis laa yorul. ah fay nañ la nag nag. waaye yow man liñ ma fay sa waaye xanaa déggoo lu ma la wax daa mat dara. ñun li ñuy fayeeku matul dara di ñun dañuy fayeeku sax deux cent mille def si trois cent mille. Hmm. waaye man moom sama nit ñi ñeneen bëri waaye man loolu moom du ma def. fayee ko ay deux cent mille def si trois cent mille man sama lambu yeegul foofu. sa waay man sama làmb lu ma si fere yéen xaalis de di rey sama bopp. Mm. waaw man fu ma yem foofu laay. ngeen def plateau bu métti yow ak ñami ñaami. ñaami ñaami. léegi. dafa mel ni sa xel dafa nekk ci moom. pour non xelam nekku ci man. mais yow en tant que mbar tey bëggoo woon bëre moom. kan parce que yéen ngi tëkkoon. ci plateau bi waaw dégg nga ñaami man moom ay ranking lañ. yaagul non xam nga ñam ni dañoo dañoo éviter woon rajo moom su taxawee di di loolu weddi nit du weddi quoi ni soo defee dara da ngay taxaw wax ko mm-hmm. gis nga man lu ma def damay taxaw wax ko man awma lu ma si arrière mm-hmm. ñam bi ñoo daje ñu def émission ba pare ñëpp xam ne man moom war a bëri yaa may dégg Omar Sali wooñu mu taxaw ma taxaw mm-hmm. mu ni ko jëlal Ama Dia du yaag caat Colobane moom mu ni caat lay jël mu ni man ak Ama risque la moom moo ko wax billaay wallaay sama kanam maay taxaw man ba nii waxuma damaa wàcc escalier dem ndax xam naa ne ku buggul bëre man am na video yoo xam ñu ngi fi bi mu waxee dama ne ko soo buggul bëre moom dañuy carrément xamuma loolu munul nekk moom jour ba dañ moom xamul Ama Dia caat Colobane lay bëre ma ne ko buggoo maa xam te soo buggul bëre man bugguma bëre yow ba nii su buggul bugguma te nii nii nii su ma ko bañul moom moo bëgg a bëre man su ma ko bañul munu ma bañ. Ah, tax bañante bi ay mais laaj ko moom su ma ragalee nag moom su ma ñëwee instant yi ñoom ay BWL ton ak ñoom ñëpp man maa seen chef ñoom dañuy taxaw xaar te ku ma si déggati ngay xas nit man dinaa la woo teg la sa place sénégalais yi man maa leen fi nekkal mhm. waaw ñoom nañ nañ respecté nit ñi. yow ñame-ñame danga koy gis muy woo aadamoo di ko daggal ay ndey di saaga nit dangay am respect mhm. ñi lay seetaan am na ñoom dañ la siy bañ man man kenn du ma si yooy comme def émission di daggi nday nii man loolu mu ko def benn yoon laa ko def te ndeyam rek laa wax samay ndeyam kese laa wax de ndeyam nit ñi bëgkaa dëkkal ma woo nit ñi baalu leen ñun ay nit leen te dañuy juum ku juum war nga taxaw arrière xam ne li nga def baaxul nga nit maa ngi jégalu Sénégalais yi mu jeex waaye gis nga nit sooy ñoot di benn affaire di woo nit ñi cinq tonnes noonu lay def te doomu aadama da nga war a respecté nit ñi yow ñu la ëpp daraja ñoo fi nekk ñu la ëpp fula ñu la gën a réew mais soo taxawee di xas nit yow say mbokk sax da nga leen a xas loolu du àdduna ni da ngay respecté ay nit soo toogee di waa émission nga respecté nit ñi respecté sa bopp nit ñi respecté la fii ko joxul cër joxula cër li jëntuwu la waaw ñam mi day toog si télé sa jàpp aar mu di daggal ay nday yow ko xam yaa ngi saaga gisoo ko xee doo mës a xeex waaw loolu du yëfi nit ñun nañ respecté loola tax rek ñu ni ay dof lañ mhm. waaw te man su ma namee taxaw di saaga ni si internet yàlla bu ma di yegg fenn si laam man ñëpp laa jox ci mhm. ku ma saaga sax jégal naa ku taxaw télé saaga ma sax naa la tontu tontu boo xam dootoo ma saaga te duñu yegg sori waaw parce que ñun ay nit lañ xam nañ suñu bopp mhm. waaw duñ manqué ni respect ñun kenn yareewuñu noonu waaw. kon kon nee na amaat ndakaaru. doon bëri ak boucher. <laughs> waaye yow nii nga de. ah mais. caatu Ndakaaru nga wax <laughs> rusul bëree man. lan moo tax mu rusul bëree. yow koo gis nga num tool. ah ama <laughs> ama jakañ jël ko. sa waay man du ma bëree kungane kooku mbëxër la mbëxër. mbëxër wu ma ak man sama morom yi laay bëreel. caatu Ndakaaru koy na dem fu mu aw sax. yàlla bu ma jaar yoon boobu. kooku duñ mës a bëre te bu dee mu si kaw sax yàlla buñ fekkante foofu <laughs> waaw moom na jël yoonam ma jël sama yoon moom am na ñu ko ñu mu war a bëreel man am na ñu mu bëri na yem si ñuy bëreel waa waa xale ñun ay yax yu ndaw lañ yor moom ngan di la yor ñun ay yax yu ndaw lañ yor ñun duñ nit yooyu waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye du ma duñ mës bëre man xaruuf ma de laamu dugguma si pour xaru de ah. dama si dugg pour foo yenn kuu yi sax bu naree bugg dama la fay ba waaw man rayante wu ma ñun dañuy foo rek dañuy bëre billaa te laam dafa neexal dafa naqaree lijjanti yow man man fii ñëpp xam nañ ma gis nga yëmbal fii mbapat yi damaa bëri mbapat mbapat mbapat ba sonn grand yi ma mës a bëri seize grand laa bëri jël jël quinze yi benn drapeau laa perte ma yombal mu fi bëre mbapat ba ñëpp xam na man mbapat la mën ñu xame xëy na làmbu xamuñu mais man bëreeguma arène bi yow yaay mën bëre ñëw si làmb ji sa bëre réer la da ngay jàpp nit ba war a def action mun la réel fooy defee action ku boobu bu si bët ni nga tal def action waaw làmb daf neexul li jënd mais ñun dañoo mën a bëre mais suñ bëre mënuñu ko indi ba léegi mënuñu koo indi parce que da ñëw di indi xiyaas sax nit ki buub la dem yoonam nga ñëw di bëre mu dugal la coup boo xam ne yow doo tal bëre yenn coup yi soo ko jëlee doo bëre man damay moytu de. damay daw ba raw ku moom du ma nangu mu daal ma xanaa nga bett ma. <laughs> billaay ku keroog bi dama bett waaye su ma ko teeloon gis. billaay jaral na toog sax <laughs> waaye du ma ko jël. <laughs> nga tëjee loolu daal ñu abonné fan. ci univers info TV. lu tax ñu si abonné te abonné ci man. ah duñ abo univers. univers mooy ñan. mooy ñi. waa yéen nga yéen ay abonné yow sa bopp ngay kaartal man du sama bopp laay kaartal. univers info. ñoom nañ li seen bopp. Ah. ah da ngeen war seen bopp. yéen da ngeen si rek de. Hmm. waa. li jënti leen seen bopp yéen ngeen xool ku leen dawal seen lii. du eh, man dawaloo suñu tur nga ni carrément gars yi ñëw abonné ci page bi. saa waay mm. yi du ñuy abonné man sama yoon nekku ci loolu. yaa may dégg ku bëgg a abonné nga abonné ku bëggul abonné ne yaa xam man sama bopp laa li jënti de li jënti wu ma leen sax yéen. kon ñun tamit ñu ngi lay jaajëfal lu baax. waaw ci dérangement bi ndax jël nañ sa temps pour interview beeg yooyu di la ah, a bari victoire yi di gën a bari comme ni nga ko defee euh, samedi bi passé rek waaw victoire yombul de. mais ñu ngi la koy ñaanal nga di. waaw ñaanal ma dal waaye yow li ngay wax nii boo duggoon ci géew gi doo ko wax de. Mm. ay ñaanal la combat yu bëri. <laughs> combat yu bëri yooyu lu ne xaj na si. non Lac de Guiers day génn. billaay yàlla ko yàlla dafa jaam day génn nit ku baax la. ñu ngi koy ñaanal fi ñu toll. gis naa ne Sénégal ay soxoruñ de. Mm. boo nekkee si tolof tolof ñoom ñëpp ay jug. maanaam dina jub nit ñu i Eumeu Sène a ngi noon daa dem ba foofu pourtant ah, ñoom ñaa bëre nañ xeex nañ waaye làmbu moo mel noonu soo leen bëree ba pare ku si ku ne pare ñoom mu ngi noonu bañ ko liggéey moom moo fa ci ñu jiit si la te ñoom ñaa ay adversaire lañ booyee war a xool si mag ñi ñun bëri ma ay ñoom Eumeu Sène yi dañuy dawalu lu ay ñoom Balla Gaye suñ baree pour bëre na dañuy rayante waaw làmb lool kese la di ñaanal ñëpp jàmm waaw di wax sama jigéen ñi mere nañ ma li ma toogul añ hey tooguma añ ku di xulli bëri <laughs> waaw maire yi ku ne di xulli bëri man leen bu dee man kenn du tibb añ de <laughs> waaw soxna Cubb day lekk kilo nogay mun na lekk kilo yaa may dégg jabaru ma juuf mun naa lekk kilo comprendre ñooñ fan laa leen di suuralee ñetti saaku ceeb fan laa koy jëlee sama aduna dëkk bu metti bi sa waaye dëkk bi dafa metti ñooñu <laughs> nañ gëm yàlla rek ba beneen te ndaak moom dafa yàqam moom moo bëgg toog kooku même bu lekkul na toog rek ndaak moom noonu la mel moom boo boo amee sa yëf sax doo ko woowu sax daw na ñëw moom mooy diwliñ sama yaay moom mbana la <laughs> moom bëgg cin la def <laughs> waaw di ko ñaanal jàmm di ko wax na baxay ba beneen inshallah waaw di gërëm ñëpp di sant suñu waa atelier bu baax barke alxuraan soonu nañ si man de di leen ñaanal sama patron waaw mooy bërëm biir bu rëy bi maa ngi koy ñaanal jàmm di ko wax nit ku baax nga waaw maa ngi lay sant di la gërëm maam si Ahmed Dieng du ma kii sama combat yi jël xaalisam sarax bu ma war a jënd moom moo koy génne comprendre ma am na ay de billa am na man sarax rarement laay jël sama xaaj jënd ko ñoom ñooy def lépp suñ waa gaara man nag du du leen ñaan su ma liiwee ku ne naa la woo lii nga war a def ndax ñoom xam nañ ni bëgg nañ ma daan di gërëm sama waa groupe whatsapp bi jaara maa ngi koy santaat di ko gërëm di ko wax moom mooy jaay cere bi ak dege ki suusel bi waaw sa dege bi nag daa ëpp day rey <laughs> waaw waaw borom si kaam mbaaw di ko ñaanal jàmm sama doom la waaw sama doom ji ma bëgg la ak ñaawaay bi waaw sant sama jabar bu baax waaw di sant hélas aw ma fayam maa ngi koy ñaanal jàmm ak baaragay di ko ñaanal waaw yaayam dafa gaañu waaw yaa ko yàlla teral si fu mu nekk waaw may ko àjjana bu bu ñu ñun moom yéenewuñ kenn lu bon waaw di ñaanal waa koñ bi billaay ba ma daanee fii dañ ma doon woo naan ma ñëwal ñëwal nit nit ñaa te buñ ma daanoon kenn du ñëw kenn du ñëw fii waaw ñoom ñoom ay nitu intérêt lañ <laughs> billaay ñoom ñëpp ñëw fees fii del te bañ ma daanee kenn feesu fi ne ma encouragé ma loolu du yoon waa ñu ñëw ne la encouragé na la daanu nga beneen yoon waaye ñoom boo daanoo ñu fees bi del buñ la daanee doo gis picc nit nag da ngay am kóolare waaw di sant ñëpp di leen sant di leen gërëm waaw ndax awma seen fay waaw maa ngi ñaanal ñëpp daal su ma limee may juum waa Serigne Mbaye maa ngi lay sant di la gërëm waaw yow yaay defar photo yi rafet yi billaay ñoo ngi lay sant di la di gërëm nag képp ku may waxal si whatsapp bi mm-hmm. waaw képp ku may waxal si whatsapp su ma la yéexee lii sa yow comprendre di gërëm jóob doo sama doom nday di ko ñaanal jàmm mm-hmm. nit ku baax la boole maa booleeg nitam waaw mu may ma tisi comprendre nga may na ma 4 mètres maa ngi koy ñaanal jàmm waaw Amina la tudd defe naa. Mm-hmm. waaw maa ngi koy ñaanal nee na man maa xëy rey quoi dama dem dama ko woo rek mu ne ma am nga fi 4 mètres. waaw te dinaa fa dem nag dinaa fa jëli waaw borom tisi yi rafet yi. waaw kanji nag na naa fa ñëw tey waaw mu joomal li may jox. waaw billaay gars yi sonal mais maa leen di ñaanal jàmm ñoom ñëpp. waaw su ma limee damay juum barke abu si maa ngi lay gërëm ak bëy di waaw gars yi mooy loolu. billaahi donc d'ici là portez-vous très bien daw leen gaaw ngeen abonné aimer liker partager merci beaucoup à prochaine fois